mbokk yi gën a bu ñu sante suñu boroom tabaraka wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di fàttalente waxi sunu boroom ji muy wax ne nun ñii ko nangul kam doon ak lam doon saa su nekk nañuy baal xel te teg suñuy gët ci loo xam ne ma nga ca kanam te amut yóbbaale muy fa nañu mujj ñun ñëpp yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad ñu xam ne yàlla ku dañ kumpa la ci lépp lu ñuy def xam ak dañ kumpa nag du benn bari nañu ñu xam mbir te dañuñ ca kumpa xamuñ la ca nekk lépp ñuy fàttalante ne jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ñuy def ci guddi gi ak bëccëg bi te la ca gën a sax di julli yi juróom ñii waaj a aji makka fas ko yéene defi ñii laajte weer wu dee kañ la ñu war a génne asaka ñi nga xam ne weeru koor bu ñëwee ñu woor ko jëf yooyu dafa am lu ko laal ca suuf lu muy tungoom nit ki bu gëmee ne yàlla mooy yàlla benn ñaareel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndawam la la koy màndargaal yent yëf la boo ko boolee ak bi ma ñaareel bi muy juróom benn yëf tudd na julli tudd azaka tudd woor tudd aj makk waaye ya ko laal ca suuf moo mat di fàttalente lool yii moom bari na ci yuñ gis nit ki tudd na ci làmmiñam ashhadu an la ilaha illallah wa anna wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulullah dégg ku ko wax saa suy saa su yeewoo balaa jant bés dana ko dégg ay yoor kuy nodd dana ko wax kuy liqaam dana ko wax moom mi koy wax su li moom mi koy dégg su noddu liqaamut it dana taaye wax ko gis nañ ba tàyyi kuy julli gis nañ ko ne màkk lañ dem ma ngay dem dem na wane nañ ko mu àgg léegi dañ lay wan sax fi muy laale kaaba gi ak mboolem arkaan mboolem waajibaat yañ fay def ak arkaan yam laaj gis nañ it ku génne asaka di ko joxe nit it jox nañ ko ci bëccëgu weeru koor mu ne daa woor yooyu yëpp teg nañ suñu bët yi nga xam ne teguñ ko suñu bët nag te lépp wér nii lii wére moo mat a baal xel lool jullit bi dafa war a gëm ne allahu waaxidu gëm ne an alladi jaa bihi muhammadun xaqun muy ñaar mu des yent yoo xam ne àgguñ ca waaye bis bu set ñu gën ko jege an albaasa an allaha yabaasu man fi lqubur an saacata aatiyatun an aljannata xaqun an annaara xaqun anna solaata xaqan bañ ca tànn tey yi ma tudd mooy nit ki day bala gëm yàllaa ma wér dëgg dëgg day gëm ne ku dee dana dékk yàlla rek la ko am na fu ñu dajale ñépp kenn du ko walle mu àtte seen pas-pas seeni jëf àtte seen diggante ak seen moroomi jaam gëm ne li ñuy wax siraat lu am la àggaguñ ci waaye lu am la lu ñu teg la di ci kaw sawara ku ko jéggi dugg aljanna kenn du ko échappé wa in minkum illa wariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya thumma nunajji alladina taqaw wa nadaru dalimina fiha judiya waaye amuk aljanna it faw julit bi gëm ko ñu bari nag aljanna lañ gën a waxtaane dañ koy waxtaane banaa ba sax naaguloo ñu bari banaan ñu ñu ñépp àjjana lañ jëm ak a des lu bari waaye it nit ki war naa gëm ne ba aljanna amee am na ko nekk ca peggam koo xam ne kenn bëggu caa dem kenn bëggutu jëflanteeg moom muy mu sawara yàlla ñu jàll musal ku gëm ajjana mënut a weddi sawara yàlla moo ne woon min kulli shay'in xalaqnaa zawjayn lu ci ne yaar la def day def tàngoor akub sedd def nit ku baax akub safaanam wala boog mu def baax akub safaanam nit ki bu ko ci neex tànn inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura sawara moom mii nag saa su nekk war nañ koy fàttali suñuy bakkan ndax léeg-léeg nit topp bakkanam ba ne àjjana laa jëm moom nit ka wax ko amu ca lenn lu ko leer ay takk yu ñàkk maanaa lay takk téye ko ba mu dëgër te kenn du ko mën a tàggaleeg moom te saa su nañu fàttali ne diw séen naa ko ca safaan bu moo gën a yomb fuuf diw gis naa ko aljanna loolu bu samay wax waxe suñu borom subhanahu wa taala nee na la am la ann jahannama min aljinnati wannaasi bu ca yamoon waaye ajmain nee na dana laaj bis sawara ndax feesal nga am nga foo def client hal imtalati lam koy tontu hal min mazid ndax yor nga fi luy dem ndax yor nga luy dem fii ju suñu àdduna ji ñu nekkagoon kenn mës a dégg kàmb gii di tàkk daa bari luñ ca def ba mënta tàkk day gën di tàkk xanaa luñ ci gën a def day gën di tàkk lu mënta lakkit dana ko wowal ba mu wow koŋ mu taal ko nii moroom yan ñu ca la musul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag am na bés muy wax ak jullit yi ca jumaa ja am na lu xewoon mu baamu kàddu sunu borom googu muy wax ci fa andartukum naaran talazza laa yaslaaha illa al ashqa alladi kadaba wa tawalla wax ja ma nga tàmbalee ci wal layli ida yaxsha wan nahaari ida tajalla wa ma xalaqa dakara wal unsa mi ngi wax li muy wax du dañ feeg guddi feeg guddee ngi am li muy wax du dañ feeg bëccëg ngi am li muy wax du dañ mukk feeg góore gi jigéen di juddu ne inna saayakum la shatta faw am ñu jëm ne am ñu jëm ne fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sa yunassiruhu fa sa yunas fa sa nuyassiruhu lil yusra wa amma man bagila wa stagna wa kadaba bil xusna fa sa nuyassiruhu lil usra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy fi aaya boobu nag anzartukum naara anzartukum naara anzartukum naara di ko wax di ko wax ba ñene ca marché ba di ko dégg na tekk mu ngi di ko wax ba kaala gam kaala woo woon wadd ndax da koy wax di joxañ loolu dara wéyefu ci teg ca ni mbaaru da ngay defe ne sawara bii da ci kaw suuf nga xam ne ku cay jëm da nga koy waajal da ngeen ne nii da ngeen da ngeen a yaakaar ne moo booba jand ji la déedéet du jand ci jooja gën na koo tànge lu ëpp juróom-benn fukki yoon la cay musal nit nag la ca bokk na ci yëg suñu borom ndax menn mag muy borom tuwaa da koo leer loolu ne leen sawara ku cay dem nu mu koy def la la moo xam muy samar ak warga wala muy wala muy togg ñu ne jox ko waajtaayu waajtaayu nu muy demee mën a yëggu mat sëkk wut ab morso wala weñ gum ko lonke waaye du jëflanteeg moom loxoog loxo mukk yëg googu noonu suñu borom soxla ci noonu ne leen bu leen jàpp mukk ne sawara yi ngeen di jëf jëfandikoo te ku cey jëm waajal ko ku mu dugg këram ñee daa jommi na ngeen xam ne xaajuta tolloo ak sawara wala yàlla di dige te yàlla bëgg ko ca dem fattaqu naar fattaqu naar allati uiddat lil kafirin qu anfusakum wa ahlikum naaran waquduha annaas wal xijaara dal ne mbugal mi gën a néew ci ña nekk sawara mara dem ci yàlla ñu jàll musal ma ci gën a woyof mooy dañ leen ci defaral ay dàll yu ñuy sol fu ñu jëm sol ko am na ñoo xam ne seen dàll yi ñuy sol bu ci ab gunóor duggee kepp bala ñoo am jàmm dañ koy wéq mu dal yi fële bañ xam ne gunóor la ñu door a sol ci jàmm waaye ku sol dàll yu tàng jër te mooy ay dàll moo ko moom kenn du ko ab kenn du ko ñaan bu gis ko mu ko dénk nee na tànk dàll yooyu su nit kiy dox li ab dox di def ci yóorub nit ki noonu la dàll yooyu tàng ba àgg ci yóor ga di ko xetal xet xet mooy cin lu lu ñu laax muy wuj wuj noonu di génne ay ay ay ay tomb ay bët ak i bët yan ca lu so moo tax mu ne sallallahu alayhi wa sallam ku mën a fexe ba làqu sawara làqu ko nëbbutu du la gis doo ko gis doonte da ngay làqu ci lu toll ni xaritu tàndarma sax na ko def dal na tey jii muy àdduna liggéey la laaj yàlla seeta gu fi jëfi kenn waaye ëllëg nag bisub seet jëf la du bisub seet jëf la du bisub jëf ci boppam dal ne bu ëllëgee des na seet yàlla dana jël ca ña nekk ca safaan ba mag ñi sax dañ ko ragaloon ba duñu tudd tur bi ñi ma koy tudde safaan ba lañ daan wax mooy safaanam aljanna ne dana ci génne kenn indi ko ci pénc mi muy wax ñépp yi dégg mu ne ko waaw sa kër nu mu demee mu ne ko naqari rek metti rek tiis rek maa fi yées moo fi yées kër sunu borom ne ko waaw bu ñu ne la woon joxeel ci wurus loo xam ne dana fees dala suuf si nag ndax da nga ko joxe mu ne ko waaw mu ne ko li nga wax nekkut waxoo dëgg laajoon naa la lu gën a néew suuf ba mu fees ak wurus te nangoo ko joxe laajoon naa la tuuti ci sa waxtu lu mu la fekk nga di ko def bu ñu neexee yàlla salaati bàyyi ko te dem laajoon naa la tuuti ci sa waxtu atum lëmm ngay lekk fukki weer ak benn ba mu des benn weer maa la wooral bëccëg bi nga lànk neexoon naa la soo mënee nga dem màkka nga nga niig niigal ba faatu neexoon naa di la génn asaka nga ne ay caaxaan la kon la ma la laajoon moo gën a néew fuuf daane gaa yi delloo leen ko fa mu nekkoon kon boog yawma takunu samaau kal muhli وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتري من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي من في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لدعاء أما في بعض القرآن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار لولو بكو جمهور يالا كسي موكو موم waaye boo xam ne dana gëm na yàlla ba noppi lànk bu dee dem aljanna it dana fa jaare ji nee na fa la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wala iftada bihi ñenn ñi jàng wala iftada bihi ulayka lahum adabun alim wa ma lahum wa ma hum min nasirin min nasirin kon boog lu mat di baal xel la ci suñuy jëf suñ pas-pas ak suñuy wax seytaane nag bu sañoon ñépp fa la ñuy dem alxuraan a ko wax na ngeen def seytaane ab noon bu ngeen ko ko defee moom la su ngeen ko ko defut moom la li tax muy seenum noonu mooy bis bu set day wut ay client xawma oto bu ndaw la yor xawma oto bu mag waaye saa su ne day bëgg di di di yàpp di yàpp bi sama inna seytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu xisbahu li yakunu min ashaabi sa'iir kon ku bari ay tur la tur yu bari la yore waaye wenn jagu ca benn jagu ca gën nañoo mettante nag ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën nañoo tarante yàlla ñu yàlla musal ci yépp moo tax ñi suñu borom di wax naan mooy ña nga xam ne dañ ko daan jege jege lu bis bu set yu tënku ci ay ndigalam di bàyyi ay tereem naka jekk daana ñaan rabbana asrif anna adaba jahannam yàlla yàlla na nga nu yàlla nga tàqale ñun lépp luy waral ëllëg mbugalum jahannam inna adabaha kaana gharama xam nañ xel ne ku fa dugg it lu luñ koy fay dong la daan ñu ko teg dong la moo tax ñu dafa dugal ñu yàlla ñu ci yàlla musal innaha saat mustaqarran wa muqama foofa waxuma la di fa dëkk waaye jaar jàll képp dara jaru ko fa yàlla ñu ci yàlla musal kon boog ñu xam ne jaamu yàlla yi ñuy def gëm ëllëg da caa bokk ëllëg nag aljannaa nga fa ab safaanaama nga fa jéggi siraata nga fa waaye bala ñoo jéggi siraat ba bis di taxaw bis penc di taxaw dekki ñu ngi ci diggante bi dee am nañu ko gis gis ku dee ba tàyyi waaye bis dina ñëw yàlla dekkal ñëpp ni muy dekkale ñax mii àll bi wow koŋ doo gis genn ñax xoolal bu taw bi bis bi dellu si yàlla mi ko def tëlewut dekkal nit ñi ñax gu ci nekk bu waree tóortóor tóortóor la mu tóortóoroon daaw ak daaw jéeg ak ay maamam soo waree génnee doom génn ko génne ko soo waree ñor ñor soo waree ruus ruus noonu ñu koy gisee la ca kanam moo raw dañu ko nattal fi ñu mën a xam rek yàlla na yàlla xiir ci boppam te musal ñu ci seytaane ki pexem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kuy jàng alquran di ko teeblu dëgg dëgg dëgg dëgg di ca xool na muy melale sawara bu jàppee ne dañ koo tegal dañ ko dañoo teg sawara teg ko ca kaw pind ba mu gis lu ca dugg mu alawte ko ko ne ko fatiix muy dégg yuuxu ya di ko jeneer di gis ñu cay dàggu nañuy fatamtoo fatamtoo ku ñu dox ci naaj wu tàng ci fu yaatu du dox dox dox ba mu daan doxee day tëb di dal moom la kenn ku ma soññal Sénégal di tëkku ñam ñam ko séqaloon naan leen dal ngeen ci foo xam ne du fa ku tëb dal ci xal dese nga meneen tëb lu wér la moom mi ko wax amul solo ñu di ci dellu waaye nag wax jaa am solo wax jaa mat a mat a teeylu kenn kuy dox ci ay xal di dox sa ak sa saw amut yenn ca lu musal kon bokk ñu waajal ko waajal dee ci boppam bi nga xam ne mooy jéego bu njëkk bi alxutwatul ula gëm ne dekki moo cay teb toj moo cay topp te bu ñuy dekki bis penc la ñuy wutale ñun ñëpp ci penc ma lañ jëm penc ma sawara nga ne la nit ñi di ko seen aljanna nga ne la nit ñi di ko seen ñu teg solaat ci kaw sawara ku ko jéggi dugg aljanna soraat ma nga ca ginnaaw sawar ma ma nga ca ginnaaw sawar ma nga ca ginnaaw aljanna loolu lañ ciy déggee ndax soraat ci kaw sawar lañ koy teg te ku jéggi dugg aljanna kon moo gën a jafe dem soraat ni ko sëriñ bi jàngalee ci téeréem daa sew ba mel ni cunkóoruk fas kawaruk fas cunkóoru kawar cunkóor mooy kawaruk fas noonu mu sewee te gudd nee na moo gën a sew soraat moo gën a yëngatu jaan jaan mag ñi daa ko tuddee tudduma la mbaay tudduma la mbaay moo gën a jekkee di ñépp ne dégg lu ko jafe la nee na moo gën a yëngutu jaan gën a ñaw jaasi taa tànk jaasi taa tànk ñi ko xamul mën nañoo xam lañ set nañ cay awe nag wuute na kenn ku nekk pas-pasam ak ak góorgóorloo am na ñoo xam ne bu ñu cay jaar duñ ko yëg bari na ñuy dem Gàmbi jéggi pont bi te duñ ko yëg dañuy nelaw oto bañ dugg mooy nelaw maanaam oto ba dugg mu jéggi ko mu te la ñuy nelaw nelaw rek jéggi gis mu jéggi mu jéggi fe pont bi am na ñoo xam ne duñu am paas bu ñu jégee pont bi ndax kuy bu fekkee fu ñuy fay la door a jàll am na ñoo xam ne duñu am paas dañu yalwaan am na ñoo xam ne ñu te leen di jël rek ne la yéegal ci oto bi doo fay ne kay fayee kay doon nelaw daa fay mën naa fay waaye kii dañu ko naan yéegal rek jéggal ko jéggil ko pont yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu jéggi salaat xef ak xepp lay nekk te yàlla boole nu jéggal ci suñu rëcc rëcc te xéer ñu ba faw te yoon wa jëm aljanna dëddale ñu ba faw ak yoon wa jëm ci safaan yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina